Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ñu ngi nuyu mbokk jull yëpp ñu nuyu mbokk soppé sayyidina Alasaan salam yëpp di ginnaw magal sayyidina Alasaan salam yi fas topat ci tanki yi wéyal liggéey bi wat ci top mborom sayyidina Alasaan salam top ci jaar-jaaram fu mu jaar rek lam fa bayyi ci ngeenel ak tawfiq ñu fas ko tatan jébbal ko umma islam yëpp ñu mën ci jariñu gën a ragal yalla xam fi ñi jaar ba maytu àq yeeg bàkkaar yi te musul ci saytane tey jii di euh, jeudi le 2 novembre 2023 ñu ñëw fii ci Touba Ilipor seet si ku ñu wax sëñ Xabban Caam daan jataay ak Seydina Asan Salaam jataay bi nag bëriwul benn la waaye nee dana ko nettali bu ci bàyyi ko it danañu wax lim jëlee ci mag ñu wóor ñu nettali ko ginnaaw gi ku ñu wax sëñ euh, Murit Sàll moom it fas yéene ci yëkkati ay kàddu leeral ñu digganteem ak Seydina Alxasan Salaam djublu ci rek yaatal ko ngir umma islam mi gëna mëna ragal yalla ak jaamu ko waye tam gëna mëna mën suñu mag ñi xam suñu borom wacc won leen ci rew mi ñi ngir ñu jaamu suñu borom ci jaam ñi seen bokk aadama salaam bismillah alaykum wa rahmatullahi taala wabarakatu mbokki julli mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu gën jaa tedd nii tuddi ni ya bu baax baax baax ngir ja man am yéen itam ñu waxtaan ci jëmu ju tedd farka la yoo xam ne yàlla nu baaxee kenn ci njabootam mu teew fii ci sunu kër ngir dox ko la rek ak tànk yu baax. sëñ Adama salaam. ci ñu toppatoo si turu turandoowu baayam. waaye moo xam ni moo joxoon ndigal ci nañ ko ko tuddee ma tudd ko kon loolu mu def lu am solo la bi yàlla dogal na ñu ñëw nag ba nuyoo ba noppi mu ne bëgg naa xam lenn ci li nga xam ne moom nga xam ci sëñ bi baaxe na ko rek ma ne ko sëñ bi de yàlla dogal na su am jotaay moom bariwul benn yoon la boobaat daa dama demoon Touba yóbbuwoon addiyee daayira suñu usine bi may liggéeyee hmm. doon jëriñ jëriñ eh, daayira Sëñ Touba ba hmm. amoon fas fas yéene bu ma ñëwee ba njaareem wàcc hmm. eh, noo ma de ba siyaar ko def ko bi ñëwee ba garas koolax ma wàcc bàyyi wata mu continuer Ndakaaru man ma jàdd fas ko yéene bi ma doxee tuuti dajeeg benn borom watiir watiiru fas ma nuyoog moom ni ko man de sëñ bi damay laaj sama benn sëñ bi nekk fii ci njaareem mu ni ma nu mu tudd ma ne ko sëñ Assane Salaam mu ne wax nga dëgg de xam naa ko de xanaa damaa ne ci yoon rek waaye nag boo boo wéyalee continuer eh, bala ngaa ci bi yi bala ngaa dugg ci biir di nga gis dinga nanga laajte ku ñuy wax Aliou Diop borom watiir la xam na ko bi ma ñëwee ba jubleen watiir yi bari nañu lool tubarkàlla waaye ma gis benn borom watiir ci sama wetu càmmoñ mu toog moo keneen ci watiir bi di waxtaan mën nuyoo ñoom dama sante ñeen ko baaxee man de dama fi laajte sama benn sëriñ am ku ma ni ma boo gisee ko ñax Aliou Diop xam na ko borom watiir la mu ne ma ah man de Aliou Diop laa tudd ma ne ko man de sëñ Assane Salam lay laajte ñu ne ma xam nga ko mu ne xam naa ko de waaye nag damaa ne ci yoon waaye kii ma toogal ci wetir bi xam na ko te mën na la caa yóbbu ma ne kon de sëñ bi kon dina nga dimbali ban ban gis ko mu ma waaw ma ne ko li nga ma fa yóbbu nu muy toll mu ne may ñeent fukki dërëm sëñ Aliou Diop moom ni ko. fanweeri dërëm la yóbbu ko mu ne may yéegal may yéeg bi ñu ñëwee ba dugg ko yoo yéeg ca tund wa mu ma ah sëñ bi yow ki ngay seete moom xam nga ko man ko xanaa ah, ci dig-dig rekk de waaye bëgg koo xam loolu bëgg koo gis nag mu ne ma ah sëñ bi da ngay da ngaa jëm ci kéemaane de man ko waaw loolu yàgg naa ko léegi ci moom mu ne ah li ma xam de mooy bu fekkee la setoo doo ko gis man ne ko ah man di wax dëgg yàlla xuma ci naa bopp dara xam naa ne fas naa ko yéene siyaar rek de mu ne ah mais di lii ma la moom lu wér cëng loo mën a waat man ko alhamdulilah nan dem rek ñu daal di ñëw bi ñëwee bi ñu ci bunt kër bi kenn ci njabootam bàyyi daam saa moom laa fekk mu toog ci bant bi ci bunt kër bi nii Mm. yor kurusam muuru mm. ma daal bi nuyoo mooy salaamaaleykum waaleykum salaam mm. fekk jox naa barométrie bi li ñu digg woon Aliou Sam ma jox ko loxo ni ni ko salaam mu ne ma sant ba ma ne ko caam la <coughs> mu ne ma caam ma ne ko salaam mu ne bokki fan ma ne ko bokki caari géej ah xanaa yow yaay bàyyi mu caam jaaje ma ne ko maay rekk bàyyam mu ne yaay bàyyi xabaan ma ne ko waaw waaw ah wax nga dëgg Baye Xabaar Baye Xabaar na nga def ma ne ko sant rek mu ne yow mos nanoo gisee Kaolack kër Ibrahima Niang ma ne ko wax nga dëgg di fàttewuma ko de man de xàmmee naa la mu ne wax nga dëgg am nañ bokk caare ma ne ko ñëpp nga fa mu ne baayam di wax nañ dina fi dina fi ñëw ma ne ko waaye baayam de jamono yi sax ba may jugee caaro yi boobu Kaolack googu la demal ginnaaw bi nag xuma ñëw na sama ginnaawam déet waaye boo ma ma maa ngi maa ngi fas yéene siyaare sëñ Saliou yóbbu daayira bi ñu laaj yooyu suñu njaama ma ma ne ko mbaa ndax ku baax kaa ngi fi mu ne ma waaw ma ne ko man moom laa bëgg siyaar nii moo tax a jaar di fii de di Tuubaa laa jóge nii mu ah yow de kon dañ laa dimbali mm-hmm. ma ne ko alhamdulilah rabbil alamin mm-hmm. mu ne ah dañ laa dimbali de ma ne ko alhamdulilah rabbil alamin waaye mi ngi fi mu ne waaw mi ngi fi de nan dem daal di ma topp ci ñëwee ci ëtt soxna yaa ngi féete ne man salaamaaleykum nuyu leen ñu waaleykum salaam fay ma daal ne ko bàyyi bàyyi mu muccaam jaaje bàyyi xabaan moo lay nuyu di la siyaar mu ko nekk ko bismillah ma mu dal ma koy joxoñ dal di wëññi ko may ma summi ko samay daal dal di ñëw ndànk ba ci buntu buntu barab bi mu nekk ñiggune ma daldi ma daldi raam daldi koy jox salaamaaleykum wa alayhi salaam ma jox ko loxo di ko salaam mu ne ma sant ma ne ko caam mu ne ma caam ma ne ko salaam yaa ma sant mu ne bokki bokki fan ma ne ko bokki caari géej mu ndax xam nga Ibou seen ma ne ko waawaaw mais ndax ndax ndax ndax doomam nga fa wala kenn nekkal na ko man ay doomam nga fa de mu daal di wéyale wéyal jàmm sant bi wéet mm. eh, ñi laaj lu mu koy lu mu mm. te waxaatuma ji dara mu mm. daal di wéyal jàmm sant bi ma ne ko mu ne kon danga fee ñëwoon ma ne ko danga fee ñëwoon eh, ci sëñ Saliou Mbacke laa jógee dana yóbbuwoon ab daayira daayib sëñ Tuubaa maa eh, man pas pas nag bu ma fa jógee moom bala maa dellu damaa ñëw ba siyaar ba noppi rek ah kon dañ laa dimbali మనకు అహంలారి మన బిందాది మిల్ మనకు అహంలారి బార్మిన منما آه لما تفصل ما تفصل waaye xam nga kilifa ñi ko ñees ko ñooxu lool moo tax ba xaw ji mën topp si bu baax laa wax moo topp si bu baax ba jege ko lool ma sëgg am lu ma wax moom tuuti ba génn néeg ba moom <laughs> tuuti ba génn néeg bi de mu ne ma ah dañ laa dimbale ndax man de fii képp koo xam ne kii yàlla dimbali na la nga ñëw fii jóg saa sama ngi jëmi yàlla ja fii bëgg ma ci sa xol mu ne ko waaw ah, mu ne ma di nga tàbbi àjjana te kenn dul isaab mu ne ko alhamdulilah rabbil alamin Mm. Mm. Ah, ma ne ko alhamdulilahi rabbil alamin mu ne waaw mm. daal di wéyal suñu waxtaan dem ba mu ne ma euh, maanaam am na jëmm ju ne si yow euh, waaye bu ko yàlla dogalee bis bu feeñee jamono nag ma ko tuddee ma ne ko incha allahu rabbi sa borom dogalee de incha allah dinaa def lu ñu ko wax de euh, kookee nag moom nag doom ji sëñ Adama doon euh, seet si mm-hmm. turandoo bàyyi woowu mm-hmm. ak it xam naa dox kóllëre googu mm-hmm. ak dox tànk yu baax rek yow la mu doon ci ci ci wéyjër mu tedd wa waaw ndax moom lu baax rek laa dox ak lislaam rek waaw waaw ginnaaw bi nag dégg naa ci moom ay mbir yu yéeme yoo xam ne su ko dégg ci kenn ci àdduna bi yàlla dogalee nag man ma ñibbi amoon nag yéene lool di ci waat fii mm-hmm. def na am am ab nag mm-hmm. waaye xam naa lu saa war na na nu rek mm-hmm. ma bëgg euh, del si waat njaareem siyaase ko nag yoonu boppam woo xam ne dama ko dama ko dama ko siyaase rek ba yàlla dogal benn jëmmi bis ma julli fajar ba noppi julli suba daal di yor sama kurus nii ci sama jullikaay yor rajo bi maa laa ñuy ñuy tàgge ba tudd aw turam ma ni ñu wax ni wàcc na liggéey boobu dafa mel ni dama lafañ xamatuma munu ma jóg jóg munu mënumaa dox mënatuma dox ma jóg dem ci sama mag sëñ ma mbay bàyyi mu tàmm boobu muy wax ñu ko ah jéggi naa xibaar bu doy na waaye mu ba jàmmal mu ko ah jàmm xanaa jàmmee jamono ji mu ne kàlla ma ko sëñ Assane saa mu ne ma ah loo ci digg man ko ah, xanaa ñu wàcc na mu tudd yàlla wax ba am bis ba naa moo juumul altine la waaw mu ne mu ne mu ne mu ne ñaan ba man ko altine lañ wax ci la koy ñaan ci lañ koy ñaanal de mu ne mbaa di nga ci dem man ne ko fas naa moo fekkee di nu dund kay dinaa ci dem. daal jot nu mu daal waaj fas yéene dem njaareem bi ni ñëwee ba njaareem man comme moom demal naa ci kër ga. nu ñëw ba ci garas koolax bi ma daal jël benn benn taxi. di ko ko sëñ Assane Salam de laa bëgg a dem. waaw xam naa ko de. beneen sëñ bu baax ñëw taxaw. dégg naa ma ma ne sëñ Asda mu ne ma ah, yow kii kooku nga tudd ma moom laa soxla ma ne ko fa la jëm de mu ne man mii dafa laa bëgg a dem ma ne ko bisimilah ci kanam oto bi mu daal dugg ci kanam maag sama mag jooju ak Badara nu dugg ci ginnaaw waa ji naka nu dugg rek fi muy taalee oto bi rek sëñ boobu daal di làmpoo sam bëgg fay oto bi hmm. fekk man ba may duggee rek laa ko daal di fay man bëgg a oto mun ko am na ko fay ci ginnaaw de mun ko ana ko def loolu ah, kenn ci ginnaaw de il mu tudd yàlla ñu la ñu la départ waaye laata ñoo ci kër gi mu ne ma mu ne sëñ bi ki ñu ne ko wax nga dëgg de mu ne ma diw di sama xarit la te defe naa ne euh, ñëpp mu jën fi moom yaakaar naa ci la bokk mu ne ah, mu ne moo ma ci wax nag mbir mu wér mu doy waar mu yéeme ma ne ko waaw mu ne ma man de damaa xëy si di ko siyaar si ñu ne ba ma ñëwee ba ma ba moom jàmmoon seen tuur sax waaye mi ngi jublu penku rek man dañ sukk toog diir waaye ni na ni ma ko fekk daal bokkul na ma na ma daan def ab diir ba ak diw man ne ko salaam mu ne ma <clears throat> ndax xam nga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mu ne mu ne ko mu ko wan ko waaw waaw naa ko de mu ko dugg ci néeg bi léegi de dugg ci néeg bi léegi ma ne ah ma xam nga jibi alislaam ndaw suñu borom loolu tedd loolu mu ko waaw mu ne ko digg na ci néeg bi léegi mi ngi toog ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ne ah xam nga sëñ Bamba Xaadimu Rasuul la mu ne ko waaw mu ne ko dugg ci néeg bi léegi jóg na foo mu toogoon ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa toog mu toog ci wetu sëñ waa dal li ko ñeenti saaba yu mag yu tedd yooyu Ababacar Omar Ousmane Aliyun ndax xam nga li mu ne ko mu ñëpp dugg nañ ci néeg bi mm-hmm. ngor gémé na lii de mm-hmm. ma ne ah mu ne suñu néeg bi moom doy na war mm-hmm. si sam xel ñu ne toog tuuti mu ni ma Seydi Aj Malik radiyallahu taala xam nga koom mu ne ko waaw dégg naa ko de mu ni ko dugg na ci néeg bi léegi nee nañu ak génn may leen tuuti dañu maa bëgg a jullee hmm. ah, bu ñu ma jullee nag ba noppi bu ëllëgee su ma fa jógee su ma kenn julleewul sax baax na dangay ngay dem ne la ci buntu kël ba te déglu ma su ma la woo a nga ñëw moo ma wax lii moo ma nekk lii loolu nag di mbir mi yéeme waaye sarax sa bu ñuy wax góor sàmb xaritu saaliwu la woon saali sàmb moom de keroog moom ci nett lu bare bare bare ci ay mbir mbir sëñ bi moom nag mel na ni daana bari lu muy siyaar si ku tedd ki ñene ma day mos na ñëw ci moom toog joxtaan ak moom nee benn bis ma ñëw toog nuyu ko toog sëñ bi waxul dara te ne boo man damay xëy war a euh, liggéeyi waaye ñee yoruma sax addi ñaar dërëm laa rus naa ko jox ñee mat toog toog toog ba mu yàgg am ku ne asalaamaaleykum ci buntu kër bi ñu alayhi salaam mu dugg ci biir kër gi bay bay bay atti bi sa jigéen ñi salaamaaleykum ñu fay ko mu ne ndax sëñ baa ngi fi ñu ne ko waaw mu ngi fi de mu ngi foofu de ñu ne kooku góor ñu ne kooku ne ñaara ñaara mën ko hey waaye tax mën ko hey mu taxaw mën ko wëññeekul mën ko ah sëñ bi mën ko dama ne wëññeekul laax mën ko ah sëñ bi teg maa dimbali ma fa ma jógee daal sori mën ko wëññeekul bul agsi góor ñee maate yooyu lii hmm. kooku hmm. wuñu ko ba génn kër gi hmm. mu ko góor jógal jël satala gi ko mu ne ko tànk tegoon sotti ko ndox ba mu taay ba mu génn kër gi bismillah jam gis ko sawar a lekk ba taxaw day tàkk moom suñu asan moo ko loolu waxtaan waxtaan na ci yu bëree bëree bëree bëri ak dikkam jamono Euh, ci jamono yontu yàlla Isaa. Ah, waaw waaw ba ci yontu yàlla moom alayhi salaatu ah. dem demoon naa ci moom. Ah. fa ma jaar moom yëpp waxoon naa la ko. waaw jaar ci jaar ci. dafa dafa gudd lool dafa gudd lool. li ci gën a ràññeeku. waaw. bi ma bi ma fay dem. sama kër laa jóge ci njaarim. sama kër gi ci armeel yi. Mm-hmm. kër yi ngay bàyyi sa loxo càmmoñ dugg ci armeel yi dara digganteem ak armeel yi njaaree mi dara doxu fi foofu laa jóge hmm. day dem ci moom bi may dem ci moom dama sama tànta laa fa nekkaloon ma ne ko man tey damay dem ci sëñ Assane Salam hmm. ni ma murit hmm. sëñ Assane de boo demee ci moom lu mu xam ci yow dala koy wax ma ne ko su ma demee ci moom lu mu xam ci man wax ma ko mu wax mu ne ma ah ma ne ko waaw ma di dem bo bo keur gu mag buntu bu njëkk ci pété ni mo yoon wo ngay jubal mais ku jëm kër señ bay sa ma dem dem dem dem ba ca kanam ma laccé ñu ma keur gaa ngi nii ma dugg ma duggé ci kii bu njëkk bi fekk soxna yi man nuyo assalamu alaykum ñu fay ma ma ne damaa ñëwoon di ziyaare ci sëñ Asan Salaam kenn ci ñoom daal di jóg daal di yoon ci sàkk bi ni ma ma nga mu toog ci buntu néegam yor benn potu tamaate tamaate yi ñaari yooyu yu xewoon ñaari kilo yi ndox def ci ndox ba mu fees jàkkaarloog jant bi di sang ci ndox mi di sotti ci kawam mi ngi sol boobu benn ensemble fiisu boobu ñu doon wax guerre jeex na mm. guerre 39 45 bi mu jeexee mm. tubaab yi ñoo ko mayoon nit yu ñuul parce que boobu ñàkk am na fi trop ñu doon ko wax tiisu guerre jeex na mu doon tiisi bu bleu clair ñu mm. daal popeline bu weex bi ñuy sange sàngee ñu génn àddina mu def couleur bleu clair hmm. ensemble la ci sol hmm. ak turki hmm. turki xaw ma xaftaan xaw ki dal sen ki kii yoon sol ma ne ma do la yi dugg assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah dal ni ma ndongo li doon ma ne ko ah ne sëñ asan salam la don ziyaare si dégg ak baaxam ak nitu yalla ki mu doon loolu rek moo tax ma juk diko ko si mu daal di jóg taxaw te jóg jóg doy war taxaw daal di tànk dëgg tànk yu dugg ci neeg bi ne ma exit ci neeg bi ma dugg mu dem tok ci lal bi ma bëgg tok ci suuf mu japp ci sama mbagg di ma do tok ci suuf man ko seigne ma bay ma tok fi mu ma do tok ci suuf fi ngay tok ci sama wet jam-jam bañ ko xare badar dal bam fa amone won na mako dindi yaram won mako xol ko mu dugg guddi ubbi armoire am am lu mu génne ni ma gis nga li man ko anaa mu summi kawasi mu soloon am khatim bu nek ci digg tank bi mu won mako nee ba liggéey ba wàcc ba dugg ci am gi raxasu ba jàpp génn ba tudd yàlla rek yem ci moom ñu ñu ma asalaamaaleykum ma ne ko alayhi salaam ñëw jàmm si mi yow fii nga dëkkal man ko waaw ah, man de fii laa fii laa dëkkal sama tool de damaa ñëwoon tool rek waaye sama tool ma ne ko ndax nga ndax maa ngi ko bëggee. mu ne ko waaw ah, am na maa ngi ne soriwuma loolu sax muy man de daa man maa maa meer hmm. baax a baax ko sàkk sax léegi nag xam nga ko ne Kumba Sylla ma ne Kumba Kumba Sylla de sama doomu ndey la. kon kon kon kon nan koo gis mu ne ko waaw mu ne ko moom de tabaraka ku taxaw alxuraan la de taxaw alxuraan la de su man na fexe fexe fexe balaa balaa faatu bor bu am fay ko bañ a yóbbaale bor mm-hmm. bu faatoo day texe waaye faatu yóbbul bor aka koy jafeñ mm-hmm. fii aka koy jafeñ <laughs> moom ñëwee ba ma àgg ba ma jógee ak kër ca moom laa la jabal ma kumba si la man mii dem naa ba ma jox ma ab complet ñetti morceau keroog it wax naa ko fàttali naa ko loolu ni ko ndax loolu moo di wax mbaa fàttali ko suñu askan mu ne ma ne ko suñu ma ko alal ma ko kooku boo xam ne mu wax na ma ko wax na ma ko waaye booba yëg naa ni. Hmm. Euh, sama jigéen sama mag bu jigéen.

lépp loo amee ci bor na nga ko fay na la jaral menace na nga ko fay noonu ma incha allah rabi waaye nag boobu laa ci mujj xam dara ginnaaw bi delloo la ba mu jox ma ay ay yére sax insan mu ne mu ne ko ndax xam nga ku ñor Moodu Kan mu ne ko ah Moodu Kan day day day ñetti Moodu Kan a ngi fi de Moodu Kan bër ak Moodu Kan bàyyi Souleymane Kane mu ah, ko la mu ne ko ak Modou ñu naan ko ko xeej hmm. mu ko man de sëñ ko man de Modou Kane ma lay wax maanaam ab commerçant la hmm. mu ne ko bàyyi Souleymane Kane bitig la yoroon mu ne ko waaw kay kooku lay wax toppatoo ko dellu euh, daa ay branche yu jotee su kenn branche moo ko teel jàll. Hmm. nañu ko nañu ko fay mbaa jënd ay balaas séddale ko njabootam ñu ko war ñu ko war doon ñu ñu ñu ñu doon. li hmm. ko xam ku ñuy wax Maxet Gueye. Hmm. mu ne ko Maxet Gueye moom magam mag ya muy faa gaa yu baale mer mu

war naa sàkk sax bu baax a baax a baax a baax a baax ndax moo magam jooju di am na fekk nañu weer moo xam ni mag ji ba mu faatu daa yóbbaale weer maram ba tey lii di Moodu moom ko nekk hmm. waaye nag sant nag yàlla bu baax dëgg la waaye di Moustapha Karim ci sëñ Bamba Xaadim bu fekkee ne gaañu baax ñu ñëpp dañ ko nekkoon ba jóge fii te defaluñu leen lii nu leen defal nii nu leen fonk fonkewuñu ko taxawuñu ci matal seen àq seen barke ci ñoom dong lay yem waaye du agsi ci nun ñoom ñoo jëfe woon li xukkamaa yi wax ne amal li dunyaaka ka annaka la tamuutu abadan wa amal li axirata ka annaka tamuutu xadan ndax li ñu jëfoon bu fekkonte ne dafay yemoon ci ñoom képp ba léegi ñu taxaw di ko waxtaane di ko sulli ngir nit ñi di xam la ñu jëfoon di yoon wu ñu tàllal woo xam nit ñi dañ cee war a jaar ngir texe ëllëg kon bu fekkee ne seet nañu ne ñooñu dañu noo liggéeyal liggéey bu réy nu bañ a seet kenn foo fees lu dul ñëpp bokk bëggandoo ñëpp bokk wormaal ñëpp bokk sàmm ñëpp nu bokk ndey bokk baay yëpp li nga xam ne moom la ñu alxuraan wax ak li yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne al muslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum wa yas'a bi zimmatihim adnaahum wa hum yadun ala man siwaahum ñi gëm ñëpp seen deret benn la ki gën a ci way gëm ñi bu fasanteeg nit wëllëre wëllëre woowee war na jullit ñëpp jullit ñëpp benn loxo lañu tiim képp koo xam ne dal nga ci kaw kenn ci ñoom ñu seet nag masuliya maanaam responsabilité sunu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoom la ñuy sulli seeni jaloore fi masuliya di lu mag ndax dañu ne ida zalla al aalimu zalla bi zillatihi al aalamu koo xam ne benn njuumte boo def mbooloo mu dul jeex topp sa njuumte loolee jàppe ko dëgg te duñ ko fas yéene bàyyi mukk te loolu lépp yow yaa koy gàddu sa responsabilité rëy na